c'est Yoro Sarr activiste pour le climat peut-être tey comme comme mën nañ ko waxee sànq boo leen xoolee ci aduna bi yëpp ci 185 pays nit ñi dañuy jóg wàcc ci biir mbedd yi di ne doy na ndax euh, pollution bi de loru dund askan bi comme ni ngeen di xamee fii nii nawet bi daa yéex a ñëw nawet bi sax bu ñëwee dina taw benn bës benn deux heures de boo xam ne dëkk bi yëpp day fees ndox nit ñi dañuy ne yàlla yàlla la certes yàlla la mais dañoo war a xoolaat ñun nu ñuy dundee ak ñun nu ñuy defee suñ oto yi suñ usines yi day polluer benn gaz boo xam ne loolu ñuy woowee gaz à effet de serre gaz à effet de serre boobu am na benn euh, couche d'ozone bu nekk ci kaw asamaan si dafay dégradé te boobu bu ko dégradé taw bi bu ñëwee du teel a ñëw tamit mais bu ñëwee day bëri te bu bëri tami da dafuy sonal askan wi loolu tax ñun ndaw ñi boo ñu xoolee man si di tantôt ñun boo ñu xoolee fii ñun ñëpp ay xale lañ ñun bu ñu jógee di lii moom doy na ñoom tamit dañoo war a xool xam ne xale yi nag suba dañoo war a dund dama leen jox benn exemple bu garaaw ba leen demee sali ak seen doom ngeen nekk seen doom bi fii nii géej géej bi fii la yemoon démb tey nga ñëw nga nekk ah doom ji gis nga géej ni nii fii la nekkoon démb mais xoolal tey ji fii la nekk xalaatal suba fan la war a nekk am na benn rapport bu gën sax bu ne Dakar d'ici deux cent ans voire ay siècle Dakar dina disparaître ci ay ci ci ci ndox bi dina jël Dakar bi yëpp loolu lépp bu ñu ko xoolee dañ ko war a jóg xam ne lii nii dañ ci war a taxaw bu ñuy lancé dirigeant yëpp am na benn accord bu ñu signé keroog en 2015 à Paris ay traité la ay accord la accord yooyu la ñu war a respecté dañu war a respecté dirigeants africains yi tamit ñoom tamit dañoo war a wax ak seen euh, homologue européens yi tamit dañoo war a respecté yi parce que ñoom bu la ñuy xoolee Afrique ñun lu ñuy polluer moo ci gën a néew te ñu ci ñun ñoo ci gën a sonn parce tubaab bi lu mu mënta mel ñoom au minimum dinañ trouver ay solution yoo xam ne bu contraindre loolu mais imaginer benn ouragan wala benn tempête bu fi jaaree waxatuma la sax Sénégal mais Afrique bi yëpp doo ko diggati. cette mobilisation nous avons euh, décidé aujourd'hui comme le monde entier. Euh, comme vous le savez, aujourd'hui, cette manifestation est organisée sur 185 pays à travers le monde, par des millions de jeunes. Aujourd'hui, nous dit, pourquoi pas nous les aussi, qui avons notre mot à Comme vous le constatez ces temps-ci, nous avons constaté un retard dans l'hivernage. on a tendance à non, c'est Dieu, mais il faut essayer de comprendre aussi que les scientifiques ont une autre explication à cela. Ils ont nommé ça le réchauffement climatique. Effectivement, à travers cette marche, nous avons, nous avons appel aux dirigeants sénégalais. Nous appelons à traiter la crise climatique comme toutes les crises, car cette crise-là est la population Vous savez, je mais si c'était vous, allez, vous, ne, du mal à passer Si vous regardez les télévisions européennes aujourd'hui, vous verrez des milliers et des millions de personnes, des, vieux de plus de 70 ans, qui descendent dans la rue pour demander, que des solutions doivent trouver. Mais nous avons lancé un appel à travers plusieurs radios comme Sud FM, mais les gens ne pas répondu. Nous ne disons rien. Nous, nous l'essentiel, on a fait notre devoir. Vu qu'ils ont échoué, nous, jeunesse d'aujourd'hui, soir, à travers Friday Vous savez, nous ne sommes pas des scientifiques. Nous qui sommes dans Friday for Future International, nous n'avons pas les solutions. Greta, lors, la fois dernière, euh, au Congrès, elle a dit aux de ne pas l'écouter elle, mais d'écouter les scientifiques. Car ce sont eux qui ont les solutions. C'est très simple. Moi, je vous donner quelques solutions proposées par Friday for Future. Il nous faudra diminuer les subventions faites aux industries fossiles, réduire, en, réduire de moitié les, les, les, les, centrales à charbon. Ensuite, augmenter les subventions faites aux énergies renouvelables. Le message que nous lançons, nous lançons un message à son Excellence, Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous, jeunistes de Friday for Future Sénégal, avons décidé de monter au créneau pour Monsieur le Président, cette, cette lutte-là, c'est la lutte de tout le monde. Il faudra prendre des mesures strictes il faudra le respect des accords signés, les accords de la COP 21 signés à en